daa wax ne ab jullit bu génnee àdduna yent yi lu ca nekk fardu kifaaya la ñam bàyyi gannaaw muy ay mbokki jullitam ñoo ko war a taxaw defal ko ko bu ci ñenn ñu taxawee seen jaan wàcc bu ko ñëpp bokkee seetaan ñoom ñëpp ñu bokk am bakkaar yent yi mooy sangu ko ak sangu ko ak jullee ko ak suul ko yent yi lu ci nekk fardu kifaaya la daañu wax nag ne diw moo war a wutal càngaay diw ca kanam nga dégg waaye kam war itam bu fekkee mënu ko jullit ñi ñoo war a dajaloo def ko te génn àdduna bu fekkee am na kum doon séel kookee doon séy ak moom moo gën a am sañ-sañu sang ko bu dee góor gaa njëkk faatu soxnaam moo gën a yeyoo féetewoo cangaay la bu fekkee jigéen ja moo njëkk faatu itam jëkkëram ja mu gën a am sañ-sañu sang ko nee nañu abu bakarin as-siddiq ba mu génne àdduna soxnaam moo ko sang soxna fatimatu mi doomu yonante bi itam ba mu génne àdduna al imaamu ali moo ko sang doonte sax góor ga ga di ab jullit te soxnaam sam yoroon nekk ci diine yahuud mbaa diine nasaraan it du tee rek moom soxna sa moo gën a yelloo sang jëkkëram joojee di ab jullit te moom mu di yahuud mbaa nasaraan moom jigéen ji waaye nag bu ko dee sang dañ fay teewal ay jullit ndax mu sange ko na lislaam santaane te bañ koo sange na diine jëmu gëm di defee maanaam bu fekkee ne góor ga faatu am na ku coobarewu ne maa koy sang te kenn xëccoowu ko moom rek dal nay baax waaye dañuy tegale nag tegale bi nga xam ne moom la yoon di tegale ngir bu amee xëccoo ñu xam ne kii moo jiitu kee moo ca topp bu fekkee ne moom mi faatu amutoon kum doon séel kon bu dee góora nañ seet tegale bii ngay bëgg a dégg na mu tegaloo ku gën a jege moo gën a am sañ-sañu sang ka ca topp topp ca ba fa mu yem ki faatu ndegam góor la ka gën a yey ca sang ga ci ña ko jege mooy doomam ju góor bu doom ju góor jàllee sët bu góor bu sët bu góor jàllee baay su baay jàllee mbokk mu góor ma bokk moom ndey ak baay ñu teg ca ma bokk moom baay su mbokk yi jàllee ñu seet doomi mbokk su mbokk ak doomi mbokk jàllee nag foofu la maamu góor door di sës su maamu góor jàllee ñu teg ca baay bu ndaw dañuy jiital baay bu ndaw bi nga xam ne mook baayam ñoo bokkoon ndey ak baay door caa teg baay bu ndaw ba nga xam ne mook baayam baay rekk lañ bokkoon su bàyyi ndaw yi jàllee ñu teg ca seen doom yu góor ñoom itam noonu la daraja yi tegaloo bu fekkee ñi nga wax léegi kenn nekku fa waaye nag góor gu di ab jaambur ma nga fa kon góor googee di ab jaambur ndegam ki faatu góor la rek na ko góor googee sang bu fa mbooloo mu góor nekkee di ay jaambur ci moom ku ko ci sang rek mu baax bu fekkee ni genn góor nekku fa nag jigéen rek fa nekk te ki faatu moom góor la waaye nag jigéen ja fa nekk ab araamanteem la maanaam yoon mayu seen diggante ñu sëy nekki góor a faatu waaye yaayam ma nga fa mbaa doom bu jigéenam ma nga fa mbaa sëtam bu jigéen ma nga fa moom daal koo xam ne mënta sëy moom rek daa am ñu wax ne ndegam jigéen ji ab araamanteem la niki muy yaayam mbaa muy doom bu jigéenam ak ku mel noonu kon bu suturaalee la tàmbalee jumbax ba ci batiwoom rek la ca des du jara sang mën naa daal di tàmbalee sang rek noona am ñu ne déedéet faaw da koy sang jàngaay lu tal ba mu daj mu laxas sagar wu tal mbaalu mel ni ay gant ci loxoom dugal loxoom ci biir mbalaan ma nag di raxas di sotti rek di raxas nga xam ne daal mbalaan maa ngi sàng góor gi faatu loxoom moom jigéen ji nag mu nga ca biir mbalaan mu féete ko kaw muy raxas rek nag waaye du ko summi mel na nag lay sukkandikoo mooy dagam noonu la demee ci moom mën naa suuturaal rek la tàmbalee jumbox bi ba ci bëti woom ba te daal di koy sang du aajowoo mu koy sang mbalaan mu tal moomu su fekkee góor a faatu te góor ne moom nekku fa mën koo sang jigéen joo xam ne ab araamanteem la it amu fa jigéen daal la fa am te mën nañoo sëy ci bi waa ji dund kon du ko mën a sang da koy tiimal rek da koy tiimal raay kanam nga waaye nag buy raay loxo ya mën naa raay ba ca conce ya nga xam ne kon buy raay loxo yi day raayaale sunna sa du yem rek ci tikku jara yi da koy raay day raay loxo yi ba ca conce ya lee mu weesu woon mooy bu fekkee ne góor la mu wax bu dee jigéen tam te amut góor goo xam ne moo doon jëkkëram ne da koy sang kon dañuy seet jigéen ñi ana ku ko ci gën a jege moom jigéen ji faatu su fekkee ne amul xëccoo sax moom ku ko sang rek ci jigéen ñi baax na waaye nag bu amee xëccoo ñu seet tegale bi nga xam ne kee moo jiitu kee topp ca kee topp ca su amee xëccoo ka war a jiitu ca sang ga mooy doom bu jigéenam bu doom bu jigéen jàllee yaayam bu yaay jàllee mbokk mu jigéen ma mbokk moom ndey ak baay bu jàllee mbokk mu jigéen ma nga xam ne baay rek la bokk moom bu ñooñ jàllee ñu teg ca doom ju jigéen ni mbokk mu góor mu bokk moom ndey ak baay bu ñooñ jàllee nag ñu dema dem ba ci maam mu jigéenam ak bàjjanam boo xam ne mook baayam ñoo bokk ndey ak baay teg ca bàjjanam boo xam ne mook baayam baay rekk lañ bokk mu tegaloo noonu rekk di wéy bu amee xëccoo ci kii koy sang mbaa kee koy sang daal ñu xool toftale boobu waaye bu fekkee xëccoo amu ca moom ku sang rek te fekk mu man ko rek baax na bu jigéen faatoo nag te jigéen ne moom ju ko mën a sang nekku fa du mbokkam du ab jaambur moom daal góor rek a fa nekk kon ñu seet bu fekkee góor ga fa nekk ab araamanteem la mooy mënuñu woon a sëy ci yoon ne ki bàyyi ma nga fa mbaa doom ju góor mbaa sëtam bàyyi ko ci doom ju góor wala mbokk mu bokkal ndeeg bàyyi mu góor muy wéy ni nga ko tegale woon léegi góor gi di ab araamante nag bu dee sang jigéen jooju moom la ar risaala doon wax wax ju mel ni lu mu jublu mooy da koy muur mbalaan mu tal ba mu daj muy sang ca kaw mbalaan ma mel ni loxoom du laal jëmmi yaramu néew ba waaye boroom saraabu wax na foofa ne loolu du ak jubloom lu mu jublu mooy day jël lu mel ni ab rido bu talatal mu jàpp ci kaw jàpp ci suuf mu doxale ko digganteem ak néew ba laxaar nag aw morso wu tal wala ay gaa ci loxoom dugal loxoom ci biir nag di sang fexe ba nga xamee ne du gis jëmmi néew wa mel ne kon lañ jublu mooy ay bëtam daal du tegu ca néew ba waaye du tee moom loxoom la koy ragge te it loxo bi du aw ca kaw malaan ma déedéet loxoom day aw ca kaw yaram wa gannaaw ba mu laxaaree ci loxoom sagar woowe wala mu def ci gaañ yooyee dafa mel ne kon nag buñ jubloo ne na ko sang te du ko gis rek buñ ko ne woon léegi takkal say bët ba doo gis jëmm ji rek kon lay gën a noppale
jigéen ja faatu nag bu fekkee ne amul góor gu ko araam ca ña fa nekk góor ña fa nekk ñépp ay jaamur rekk lañ ci moom kon kenn du ko ca mën a sang genn góor day ñëw rekk tiimal ko raay kanam nga te bu dee raay loxo itam day dem ba ci fa ñu takk jara rekk yem ca waaye du jàll ba ca conce ya su fekkoon ne jigéen mooy tiimal góor moom buy raay loxo ya dana mën a jàll ba ci conce ya waaye nag bu fekkee ne góor mooy tiimal jigéen moom buy raay loxo ya day yem rekk ci fa ñu takk jara du ko weesu jàll ca conce ya nit ñi sangoo ca ngaayul janaaba rekk lañ bëgg ñu sange ko néew ba ñoo bokk aw melo waaye nag cangaayal néew moom dañuy bëgg mu tóol benn cangaay nag tóol na waaye dafa néew bopp te yaari cangaay itam dafa tóolut kon yetti cangaay daal manes na caa yem mu doy sëkk ni ñu defee yetti cangaay yi nag mooy cangaay lu njëkk li moom yaram wa set wecc rek nga ciy jublu du aajoo nga di ko tegale nenn ngay sotti ndox rek yor saabu mbaa leneen loo xam ne lu mën a setal la raxas-raxas ba mu set rek nga xam ne bàyyiwoo fenn cangaay lu njëkk li setal rek lay doon cangaay la cay topp nag muy lu ñaareel la moom la ñuy sàmmoon teeg defe ko ni ñuy defee cangaayul janaaba nga xam ne nañ soppi woon ku na sangoo janaaba rek lañ bëgg nga sange ko néew ba cangaay lu ñaareel lii nga xam ne moom moom la ñuy sàmmoonte muy sunna si nag moom ndox mi day mel ne ma ñuy jàppee ndox ma du soppi ko ci genn wet day mel ndox mi ñuy jàppee bu ko dee sang itam na tàmbalee ci raxas yaari loxo yi ñetti yoon nañ baaxoo sangoo janaaba su ko mënee dij nag dij wéer ko mbaa am ko ko téyeel da koy dij bu ko dijee ba noppi njëkk raxas li tàmbalee ju mbox ba ci bëti woom nga xam noonu mu ko dijee lu nar a génn ci moom xëy na mu génn ci yooyu jamono bu njëkkee jukki li tàmbalee ju mbox ba ci bëti woom daal di koy defal njàppum benn benn ca noonee mu ko dijje woon rek nag ndax mooy tax buy def ndox mi ci galaxndiku bi mbaa saraxndiku bi lépp dana génnaat ci bitti waaye su ko tëraloon ba noppi bëgg koo defal galaxndiku mbaa saraxndiku ndox ma day jàll ci biiram kon noonu mu ko dijje woon rek noonu la koy téye jàppal ko njàppum benn benn ba weesu galaxndiku saraxndiku war ko tëral nag jàll ci sange ko nam xame woon rek ñu koy sangoo janaaba bu cangaay loolu jàllee muy ñaareelu cangaay nag mu teg ca ñetteelu cangaay ñetteelu cangaay moom ndox ma da cay def lat ko lañ ak lépp lu neex xeet rek mu def ko ca ndox ma te moom day sottee sotti rek ba fépp daj du aajowoo muy bobbu fenn mbaa muy tàmbalee fee njëkke fee mujje fee moom daal cangaayal ñetteel li moom lu ne xeet lu ne rek mën na ko caa def mën na koo def ca ndox ma daal di sottee sotti rek nag ba yaram wi daj mu daal di doy kon ñetti cangaay yi noonu lay demee cangaay lu njëkk cangaay lu njëkk li setal dong lay doon nga xam ne saaboog lépp luy setal rek mën nañu ko caa def te amul fu ñuy tàmbalee fu ñu mujjee dañuy raxas rek ba mu set ca ngaayal ñaareel li nag la ñuy saamoonteeg ndox mu mel ne ndox mu ñuy jàppee ñu sangu ko it nit ñi sangoo ca ngaayal janaaba ca ngaayal ñetteel la nag moom ñu bëgg muy ndoxum kese ba noppi ñu def ci lat ko lañ ak lépp lu ne xet waaye saabu amoon na ca ca ngaay lu njëkk la jot defaat saabu nañ ci def rek lat ko lañ ak lu ne xet buñ amee itam ndoxum samsam def ko ca ndax barkeb ndoxum samsam ma jangaal ñettee loolu moom bu yaram wa dajee rek mu doy du aajowoo tàmbalee fee mujje fee tak tak bi joxe foofu nag mooy ku mën di sang ab néew na nga suturaal la tàmbalee jumbax ba ca bëtiwoom góor di sang góor ak jigéen di sang jigéen ñoo ci yemoo bu mu ko def yaramu neen rek tiim ko noonu na suturaal la tàmbalee jumbax ba ca batiwoom lu may nag ñoo àndoon di sëy ndegam moom kiy sang moo ki mu sang ñoo àndoon di sëy ci ba muy dund dañuy sopp rek mu suturaal la tàmbalee jumbax ba ci batiwoom waaye bu ko sangul it bàyyi rek lu ñu sopp waaye agul ci war nag seen diggante ñu takk itam ne faw moom mi nga xam ne mooy sang ab néew dañ koy wax ne ko sa loxo mu àgg ci awray néew ba day wut morso bu tal laxaar ko ci loxoom mbaa ay gants bu ko defee di ko bombe yaram wa waaye jëmmi loxoom du ko àggale ci awray ka faatu lu may nag
am nañu ne lu yàgg-yàgg loxoob keseem du ko àggale ci awray néew ba ndax lu awra ja taq-taq jamono yi muy dund mënoon naa julliwaale taqaay boobee kon nag ndegam faatu na ba raxas rekk denc moo ci des du saña àggale loxoom dëgg-dëgg ci aw raja faaw rek loxoom de ci laxaar sagar wu talwo wala ay gants am ñu ne su fekkee ne kat taq na taqaay boo xam ne faaw mu àggale ci loxoom dëgg-dëgg bañ caa laxaar dara mooy tax mu set kon dana ci mën a àggale loxoom dëgg-dëgg ndax mu set dafa mel ni nag sañ na caa àggale loxoom ci yooyu jamono ndax mu set te bañ a laxaar dara ca loxo ba jooju waxtaan mel na ni moom lañ sukkandikoo.
xale bu jigéen boo xam ne daa toll ci nàmp rek at jëm ñaari at waaye matagul ñett góor gu di ab jaambur mën na koo sang xale bu jigéen bi. ci nàmp rek lay tollu at jëm ñaari at weesoogu ko su faatoo mën nañoo bàyyi góor sang ko te jigéen bañ koo sang xam ni góor ga jaambur la ci moom waaye nag bu xasee am ñetti at moom jigéen rek moo koy sang kon kay jaambur bi da koy tiimal rek noonu bàyyi su fekkee gone gu góor moo faatu daañu may jigéen joo xam ne jàmbur la ci moom mu sang ko su fekkee gone gu góor ga juróom ñaari at mbaa juróom ñett rek ci la toll nde xale bu góor bu xasee am fukki at moom duñ nangu jigéen ji jàmbur ci moom di ko sang bu fekkee góor ni moom ma nga fa baax na bu fa nekkut jigéen joo xam ne ab araamanteem la ni ki yaayam mbaa ku mel ne moom waaye jigéen joo xam ne bokkut ak moom dara moom bu dee moom rekk fi nekk da koy tiimal rekk noonu waaye du ko sañ a sang ba tey mënees naa bañ a bomb yaram wa ca bañ koy sang moom néew ba su fekkee ne dafa am lu tax mel ne buñ bombee yaram wi der yaram wi day xolliku mbaa yaram wa dafa yàqu yàqu goo xam ne mënees koo bomb kon buñ ca mënee sotti ndox te du wàññi dara dañuy xëpp ndox bi rek noonu ci kawam te bañ a bomb su fekkee nag buñ ci sottee ndox noonu sax mu gën a yàq yaram ba ñu bàyyi ko te tiimal ko bañ koo sott ndox bañ koo jegeel ndox sax te tiimal ko rek bu fekkee ne foofa yaatu na ku ne mën na am bàmmeelu boppam te amuñu ngànt ci kenn ku ne ñu gasal ko kon lañ sopp mooy kenn ku ne beru ci bàmmeelu boppam waaye nag bu fekkee foofa dafa xat mbaa ña faat daa bari ba nga xamee ne kenn ku ci ne ñu gasal ko bàmmeelam yombut mbaa foofa dëgër dëgëraay boo xam ne am fa bàmmeel yombut moom daal bu ngànt xasee am rek mënees naa boole ñaar mbaa ñett ak lu ko ëpp ci benn bàmmeel gas menn pax rek boole leen ci ñoom ñëpp sopp nañu buñ sangee ba àggal fendal yaram ba ba mu fendi mënees naa jël ab sarbet fomp ko ba mu fendi fa saasi saas dañoo sopp ñu daal di koy sàng buñ ko sàngee daal di yóbbu jullee ko dañoo bëgg rek càngaay li sës ci buñ sangee ba noppi weesu woon nañ ko léegi càngaay la mujj sopp nañu def ci lu neex xet am na lu ñu tuddi am ndéem daan am ci yooyu jamono ak gëtt gu ñuy wax kaafoor buñ ko amee def ko ca lu ñu taamu la buñ ko amul nag leneen luñ ca def rek ci xeet lat ko lañ yi ak lu mën a seral yaram wu rek baax na sopp nañu bala mu koo sang bu bës biir ba ndànk ba lu fekkoon mu nar a génn daldi génn ndax dañuy bañ bu sangee ba noppi sobe génnaat waaye nag bu sangoon ba noppi sobe génnaat it du yàq dara ci cangaay la sobe sa génn rek moom lay raxas mu daldi doy sopp nañ bu jëmm ji xësee faatu rek fekkee ci suuf la tëddoon ñu yëkkati ko teg ko ca kaw kaw ab lal mbaa kaw leneen dañuy bañ buñ ko bàyyee ci suuf rek lu mel ne jiit yeeg jaan yeeg yi dox fi suuf daal di gaaw ñëw ci moom mën nañoo dugg sax ci biiram ni ki jaar ci pax mbokkanam mbaa fenn jàll ndax dañuy wax ne nit bu dee dund yàlla da koy booleeg malaaka yoo xam ne lu jëm si ci moom rek te narul mu agsi ci moom moom yàlla narul mu agsi ci moom malaaka yooyu ñooy téew loola ba du jàll si ci doomi aadama ji bu doomi bu doomi aadama faatoo nag malaaka yooyu dem nga xam ne amatul lu koy aar moo tax kon ñu bëgg ñu yëkkatikoo ci suuf teg ko ci kaw ba xeet yi mel ne yi batu fi suuf duñu agsi ci moom dañoo sopp néew bi ñu sang ko ca ngaay lu tóol benn nag tóol na waaye daa néew bopp ñaar itam tóolut ñett nag tóol na te diggu doomu na niñ ko waxe woon léegi rek yetti cangaayee mën nga koo jàpp yow mën naa jàpp waaye nag buñ ko sangoon yetti cangaay te ñetteelu cangaay ba taxul mu set ndax yaram waa demee noona dañ koy sang cangaayul ñeenteel cangaayul ñeenteel la fekkee setal na du tax ñu yem ci dañuy jàll ba ci juróomeel ndax bëgg mu tool ndax ñeent daa toolut noonu lañ koy toppee nag diwéy rek dañuy sib nag ki faatu ngay wat kawar ga mbaa ngay lewi weeya ñoo bëgg rek nga bàyyi ko ca noona soo defee loolu ñu aaye nag wat kawar ga mbaa nga lewi weeya kon da nga koy ëmbaale ca càngaay ya nga koy sànge suulaale koog moom